ay maqaam yàlla bismil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaam yàlla auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayyidina muhammad nabilu mi wala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallama tasliman auzu billah bismillah inwalillah salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk internet yi nga xamante ne yéenay teewlu seen télé bi nga xamante ne mooy Amsa TV ñuy amaat mbégte gu yaatu yaatu dellu si waat ci sunu jotaay yi nga xamante ne moom lañ leen faral di dëgtal saa ne lépp itam aju ci xamante ne mooy xew-xewi jamono. Mm-hmm. aju itam ci li nga xamante ne mooy nekkinu doomu aadama yi ci biir jamono. Mm-hmm. ak fi jamono toll ak naka la dëpp. télé bi nga xamante ne mooy seen jotaayu xam-xam bi. Mm-hmm. ci biir tele bi nga xamante ne mooy. Euh, nee naa leen solution. Mhm. moo leen di indil solution ndax solution rek moo koy tax a jóg ndax mbooleen lu ñu fi waxtaan ba noppi lu ngeen fi dégg ñu waxtaan ko fi. bi muy Cheikh Moustapha Dieye mhm. dëkk fii ci case des bu Ouest Foire. Mhm. wax dëgg yàlla di benn adresse boo xamante ni kull ku ko xam tam moom nga ko xamee. donc li ñuy fàttaliwaat saa su ne. munu cee ñàkk. moom la ñuy faral di feggool ci biir jotaay yi. ci ëpp lépp itam ngir solution bu ñu apporteel askanu Sénégal rawatina mbokku Sénégal yi nga xamante ni ñu nga ca bitim réew. Mhm. ku mën a jëriñ tubaab nag sa mbokk moom matuta wax. Mhm. moo waral ñu am yëg-yëgu saa su ne di ko seet di waxtaan ak moom ci li nga xamante ni mooy xam-xam. ndax nee naa xam-xam moom xaw ma bokk ci. Mhm. te mosuñu koo laaj tam lu mu ne xaw ma ko. kon macha allah ñu ngi koy nuyuwaat bu baax a baax di ko ziar waaye itam di ziar bu baax a baax euh, mbokkante na yi nga xamante ne ñoo taamu am sa TV la télévision euh, ci seen li nga xam ne mooy seen kóolute di la ñaanal kenn ku ci ne lépp lu mu fiy xool daal yàlla na yàlla sama borom dajale ko ci mu doon tawféex doon ngërëm doon ndimbal ci jëmmam joojee macha allah rabbi Cheikh Moustapha nuyu nañ la bu baax a baax waaye ziyaara waat la itam macha allah naan la salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu Cheikh Talla ñi ngi ziyaar ñëpp di baalu àq ñëpp mm-hmm. tey ñaanal waaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp. Mm. rawatina. Mm. ñi ñuy teewlu ci internet bi. ak fudul foofee fi ñu ko yaakaare. Mm-hmm. di nu bàyyi xel lool. Mm-hmm. di nu déglu lool. ci loo xam ni yéene la yëg-yëg la mm-hmm. yaakaar la xol bu rafet la yàlla na leen yàlla fayal boppam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal ñi tudd ci hôpital yi yàlla defal leen wér di ñaanal ñu tëdd ci biir suuf yal leen yàlla yërëm te xaari leen aljanna di ñaanal ñu caabi féete ginnaaw yal na leen yàlla teggeel seeni nattu waaye di ñaanal ñi nekk ci àll bi ngir daan seen doole mhm. ngir yóbbu ci seeni mbokk ngir bañ a jaay seen ngor ngir wóolu yàlla ak yonent bi rekk ba mu jaral leen di ci daj lu ne mm-hmm. léeg nu dund fitna gu doy waar ci réew ya mm-hmm. léeg ku leen waral yàpp sax yàpp leen waaye nu jël lépp yaboo ko ngir lan mm-hmm. ngir bañ yaakaar ju tas seen digganteeg seeni mbokk ak seenug réew ñu leen di ñaanal yàlla sama boroom dimbali leen taxawu leen ba lan fay wut yàlla nañu ko teel a am tamu doon seen jiklaay ci darajey rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba nanu demee ak seen sago it mu jëbbee ko seen sago mm. ci jàmm ak salaam mm. Cheikh Talla asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Moustapha ci nuyoo bu am solo bi waaye ci ñaan yi yal yàlla sama borom defal ñu ci dégg waaye bu ñu defee dégg itam yàlla def ak topp nangul ñu ko mm. te ful ko wax dëgg yàlla wàcce waat ko ci booleem jaamam ñi macha allah rabbi ziyaare waat la ba ziyaare waat ñëpp Cheikh Moustapha fi ma bëgg ñu waxtaan ci tey bokk na ci lam mooy waral mbokk bu bon mm-hmm. ndax dañu seetlu tey ci jamono yi. xeetu ñaaw ñaaw yi nga xam ne mi ngi am ci biir famille mm-hmm. ci biir société bi mm-hmm. ci diggante ndey ak doom mm-hmm. ci diggante mag ak rak ci diggante baay ak nangam Cheikh Moustapha ci réew mii ñu nekk lan moo war a mën a war a loolu ak lan moo ko war a mën a jar ci àdduna bi ñu nekk xanaa day di ndokkale bépp jullit ak képp ko fekk laylatul xaddari xayrul min alfi shahrin mm-hmm. di ndokkale bu baax a baax. macha allah di ñaan yàlla. Mm-hmm. yàlla na sama boroom boole nu ci ñun ñépp ci ñenuy jéggal amiin bi jaay Seydina Muhammad yàlla na nu boole ci ñi nga xam ne xaaj bay fekk déwéni déwén amiin yaa rabbal aalamiin mooy léeg-léeg gaañe ne xaaj bay fekk déwén hmm. waaye xaaj bay fekk ay déwéni déwén yi déwéni déwén macha allah yàlla nañ ko yàlla defal amiin yaa rabbal aalamiin waaye kum ci fekkit nga tawat yàlla na nga wér amiin yaa rabbal aalamiin kum ci fekk nga jaaxle yàlla na ci yàlla dindi amiin Seex Taala mbokk mu bon hmm. moo raw bëñ bu bon moo raw poson Mm-hmm. wallahi moo ko raw Seex Taala mbokk mu bon nag dañu naan kañ lay jeex waaye am na mm-hmm. yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ko doon def fitna ñépp ay mbokkam <laughs> ku ci participer sax sa mbokk la mbokkam a ko mooy kaay leen xeex ko gi mm-hmm. ay mbokkam ñooy woote mbokki jaamur waaye ay mbokk ma koy jiite kon yàgg na fi mbokk mu bon bu nu nee fal nan la mhm. mooy njëkk ni amut xaw ma dégg nga wax jëm déedéet buñ nee fal nañ la mooy nee fal nan la mhm. mbokk mu bon mooy njëkk ni nu amut buñ nee imaam la mhm. ni kii kay dojjiite ndaxte saay saay la moo koy njëkk wax nag ndeysaan <laughs> ndax yéene wu la ko xanaa xamoo koo dégg ni nu liggéey nanu ko ci suuf ba mu dugg ci biir suuf ngir suuf su mu doon xëccoo boo xoolee ba ci biir ci biiri mbokk lay jóge déglul wax ji <laughs> waaw ndax xam nga lan moo tax bu la jekkoo mu garaaw <laughs> dafa xam reen bi xam taatu garab gi xam car yi xam bànqaas yi <laughs> ba xam sax rabu garab ga faf mooy xam ne nit ki xami bagaasam xam yéppam fépp la am nag ñenn ñee ci jot rek ñenn ñi jotonu ci ndax am na ku lay iñaane waaye daa mënul jot ci yow ba xëpp la la bëgg a xam waaye nee naa la mbokk mu bon moo lay njëkk jéen sàcc waaw mbokk mu bon muy njëkk a tas sa sëy billaahi am na ñu koy dund Cheikh Talla mbokk mu bon moo lay génnee ci réew mi waaye gëmal ni mbokk mu bono lay fekk ngay liggéey ci Amérique xëy nga bind démission ne bàyyi naa daal di bokk sax saag bàyyi fa loo fa mas a am ñëw toog mu lay xool di ree naan la danga dellu gannaaw te billaahi moo la delloo gannaaw mbokk mu bon a koy dund ak nit mbokk mu bon muy tiim sa bàmmeel di la jëw mm-hmm. ci jamono jin lay denc yàlla bu nu ni dencoo dara mu ne ah kon bon a ngi yegg ba foofu noonu fi romb na ko ndax mbokk mu bon weesuwut nga bokk ak nit ndey ak baay mhm. moo faatoo mhm. nga jël alalam teg ci tànk di ko xañ ak njabootam am na ñu koy dund du jeex du xaaj ah. mhm. <laughs> mbokkam jaamur doonut mbokk koy def <laughs> mbokk mu bon a ngi si diw dama koy jël mu ni diw de ni ma ko xamee doo ko jël te ki lay ki lay yàq ba jëlunu la sa mbokk lay doon ñi ngi koy dund am na ñu koy dund ci société bi mbokk mu bon a ngi noonu Cheikh Tall yaa ma laaj nag laaj bu doy waar mhm. laaj boo xam ne ay ko xam li yàlla wax ci mbokk mhm. <laughs> bu newee ci yow ay waay taal gas sax taxul jàngoro ji faju waaye <laughs> mbokk mu bon a ngi noonu Cheikh Tall mhm. mbokk mu bon mooy fekk nga am lu baax muy suuli gàllaaj si sa immeuble. Mhm. di suuli gàllaaj ba immeuble bi xëy rek daaneel. ne naan liggéey baa baaxut. <laughs> gis nga balaa muy daaneel immeuble bi yow mii borom kër gi lay njëkk daaneel. ndax teg na la tawat joo xam ni puus puus moo la fiy jaar te wallaahi boo xamoon ni ba ngay tabax immeuble bi. Mhm. tawat gi dana la dab. jarul nga ngay yéeg ci étage. yëgoo ko sentiroo ko da ngay xëy rek say cër bañ ndekete yoo. Mhm. la fa suulu moom la. mbokk mu bon mooy dem wuti gàllaaj goo xam ne darit lay àndal mu koy raax sa miir bi boo dee boroom xel nga toxalal sa njaboot te xam ni sacrifice na leen te yëgoo ko mbokk mu bon da koy def mbokkaa la man jekku ndax mooy dugg sa kër dooy nekk génnal mm-hmm. yegg pénétrer la foo xamante ni fi ne kenn du fa yegg waaye nee naa la mm-hmm. <laughs> mooy fexe ba nu dugal la ca kees sa Italie indi la ndax gor su tukki mhm. di xëy di taab mhm. di xëy ni koy dàq mhm. di xëy amatul lu mu lekk du mën a ñibbi mu koy souffrance ba xëy dee fekkat yow gàllaaj gi ko suul a ngi fi ci kees lay mujje dem te yow yaa koy suuli naan moom di ñëw ni ndekk indiwul dara wallahi te yow la mbokk mu bon am na hmm. moo tax ay bun ci bokkul ay nanu ko sante yàlla te hmm. yàlla bun ci bokkul allahumma amiin hmm. am na mm-hmm. <laughs> mbokk mu bon moo naan lu tax waa kër diw am te amuma mm-hmm. ay loolu méttiwut méttit mënul weesu bokk ak nit mm-hmm. mu tàqale laak sa njaboot xanaa xamoo mbokk mu bon dana fekk sax nga am say doom déggoo ak ñoom déggoowul ak njabootam mu fexe yow ba tàqale la ak sa njaboot <laughs> lo lu mu la wax ngay def mbokk mu bon moo weesu nga war a jox sa njaboot sa dépense muñ la bul ko jaarale ci ñoom dee ko jaarale ci man di fitnaal sa njaboot di leen mbugal te yow sa wàllu bopp sa ñëw ni ci miix ndax fam la dugal kum fa dugal dooni miix ak yeneen <laughs> ah ni nu kenn du ko wax mm-hmm. ah buñ ko waxul xam waaye est-ce wax jee solution am na ñoo xam ni bu nu doon jëfandikoo yenn gàllaaj yi hmm. bis bu ne daanu dégg seeni famille ñeent dee na <laughs> waaw nan ko ci doof waaw moo tax am na gàllaaj yoo xam ni danga koy gàntal waaw nit danaan sàñña di la ree mu leer ne la deritam ji bu laaloon suuf sa yaram daw ndax yéen a ko bokk hmm. waaye wallaahi mu sañoon dañuy tiim sa jàkk te xamoo loo ko def ak loo ko wax baa loo am ba mbokk mu bon weesuwul sa mbokk ne ca Amérique lu mu liggéey wala ca itali wala ca Espagne lu mu liggéey am yéene jël deux cent mille jox la nga koy wër wëree sëriñ si naan na ma ko yokkal bu koy yokkul naa xeex ak moom yàqal ko la mu amas néew mbokk la koy wax de mbokk mooy toog ni la ni doo am jàmm mbokk mooy toog ni la ni sa doom yi bul sonn dunu ma sa tekki taala mbokk mooy toog ni la ni yow xee doo ma sa sëy mbokk mooy toog ni la ni xee doom doo ko ma sa am mbokk la koy wax man dama gisul lu gën a garaaw li ma laaj te tuuti laa la ci compal nit nag su la yéeneetul jàmm hmm. yaa ko mbokkoo waaye doonatul mbokk nanu ko wax te yàlla ba muy wax mbokk mbokk moomu taxul de mm-hmm. <laughs> waaw mbokk mu bon a ngi noonu Cheikh Tall mm-hmm. doy na waar doy na waar Cheikh Moustapha parce que <laughs> doy na waar daal li daal mbokk mu bon daal fi ne man daal seen ji xaw ma est-ce que est-ce que tey jii fi mu toll ni nit ki jëf yenn jëf yi waxuma la sax mbokk jëf ko mu jëm ci sa moroomu nawle sa moroomu jullit mm-hmm. bu ñu bàyyee xel ci wala xadd karam naa bànni aadama rek defe naa ne yellul warul rawatina koo xam ne deret la leen boole deret mm-hmm. mais sëñ bi ce que kooku mi ngi bi muy def loolu mi ngi koy defee sagoom wala mi ngi xalaat ëllëg yan conséquence la ci mën a jëlee mbokkay taxaw ni la kër gi may taawu kër gi mm-hmm. sama loxo lay mujj am na ñu ma ko war a séddool waaye kenn du ci dugg ñépp dañuy xëy di dee ba xëy di dee mbokk la koy wax <laughs> te it nam la ko waxe noonu la koy defe Seex Taala mbokk li yàlla toxoon ñu koy boole ak liñ ci gis léegi du benn <laughs> benn moo tax nag li nga laaj ni <laughs> mooy loo xam ni kenn xamul sax nan la ko nit mën a expliquer am na ñu koy dund mënuñu ko wax. Mhm. <laughs> est-ce que xam nga ni mbokk mu bon mooy yàq sa àdduna te ñeme woo ko wax fenn. même boo ko xamee doo ko wax. doo ko wax mënoo ko boo ko waxee famille ba tas. <laughs> Oh. lu ci bare ci jigéen ñi lay dal ndeysaan. du nu ko wax. boo ko waxee famille bi tas. waaye nag man ñëw ci gën a yërëm mooy. Hmm. ñi amul fu nu jëm te dëkk ak seeni mbokk ni leen ni buggal ba mel ni ni sax dëkkunu ak ba mel ni sax bokkunu ak ñoom dara dara mhm. dara am na ñu koy dund de mhm. wallahi am na ñoo xam ne ñu ngi jeex tàkk ñu ngi feebar bis bu ne buñ demee hôpital ak lañ leen di wax ki leen ni rosé di leen def yooyu mi ngi ci biir kër gi bokk ak ñoom lépp ci àdduna waaw <laughs> bokk mu bon a ngi noonu seetaan yàlla nañ ci yàlla mos. yàlla nañ ci yàlla mos. wallaahi wa rabbul kaaba. doy na waar Cheikh Moussa waaye nag <laughs> ma dolliwaat nit ñi ñaax ni leen. Mhm. nit ku gis lu bon. Mhm. fexeel ba jukk mhm. aar sa bopp. bul bàyyi ko de. bul ni lu ma ci man de. ndax kuy jéem ci yow. jéemal ci sa bopp bul jéem ci moom nag bàyyi kook yàlla. waaye jéemal ci sa bopp. waaw. ndax nee naa la boo bëggee doon fas doo mel ni mbaam. <laughs> wallaay kese. Mhm. loolu nag wax la doy na sëkk ci wax. <laughs> wallaay ndeysaan moo tax nag il faut nit ki. Mhm. bàyyi xel loolu. Mhm. tey sabab lu sax mooy sabab lu baatu sabab lu lay daal di indiwaat surtout waaye mbokk mu bon a ngi noonu Seex te tey pàcc bu ndaw laa la ci wax. suba naa ci wax yeneen yu gën a doy xam ne nit ñaa ngi koy dund ci dund gu doy waar. mbokk mu bon lay teg lu métti te bis bu ne mu xëy naan ndax yaa ngi. loolu loolu loolu bon kese la wala dafa ànd ak du bon kese xam nga yaa ngi tane googu lan mooy kañ ngay dee waaye loolu kañ ngay dee mbokk mu bon luy liggéey ba nga ñëw toog ci kër gi mun la ndax amaatagoo liggéey ba léegi moo tax ku daan jëfewul ak yow nen na ni wëlbati ko wan la mbaax goo xam ni bon la ko jëkke woon mhm. xoolaatal mbir mi mhm. du dëgg ah, am na lu muy am na lu muy bëgg a mencin waat mhm. te bu ko cencin yow nga yàqu am nga rek <laughs> yal ci yàlla musal yal nañ ci yàlla musal mbooloo jullit waaw ah, parce que loolu loolu olof di wax naan fi mu ne jëm jëm jotu la dana seet fa la gën a jege mu jaari fa wallaahi yàlla xam na na ngi ut siwaat ñi ngi ceen ci mm-hmm. bu wax nga ko léegi ci sa biir wax mm-hmm. buñ la sakk sacrifier. Mhm. baatu sacrifice nit ñi dañ koy dégg rek. Mhm. mais ba léegi dafa mel ni xamaguñu la mooy sacrifice. ba pare ndax est-ce que sacrifice tam dafa yem ci tour deret mhm. rek wala am na sacrifice yu ñu dul tour deret est-ce xam nga am na ñoo xam ni buñ la sacrifice bu ñu yéegee ni feebar nga doonte ñu ngi si kër gi duñ la mas a seet si. ndax lan loolu. bu nu ko defee doot nu ko defati. <laughs> xol bi leen may ba mënuñu la seet mhm. moo lay xamal ni am na lu leen tënk am na <laughs> am na waaw am na mhm. gis nga mun la sacrifice kilo la ko def du la mën a seet si mhm. waaw bokkul nag seytaani jàppa la wëlbatiku bëgg ñëw jekkale la du benn <laughs> hmm. waaw moo tax nit am na foo toll boo tawatee bul def ku la jox nga lekk mhm. waaw am na koo xam ni sax bu la seetsee am lu mu la indil nee leen yëkkati leen ko nu yëkkati nga leen teg leen ko nale mhm. ko kenn laal mhm. ndax tëral na la waaye doyatu ko lu mu leneen lu mu tëral lay wut <laughs> waaw leneen lay wut moo tax sacrifice googu am na ñu koy def waa am sa aaw mu tawat feebar baa am sa taaw mu tawat feebar nga ne ci kër gi di tegle say tànk di lekk lu la neex te mënoo di xool ndeyam di sonn ci moom te te doo taxaw ni ordonnance ñaatal wala doo ko seet si xam nga li ko dal billaahi xam nga ko mm-hmm. <laughs> waaw gaa xam nga li ko dal kon li ko dal lan la da nga dal nit ñi nag <laughs> am sa xarit nga dégg ci moom lu doy waar mm-hmm. <laughs> buuse woo met jëloo sa téléphone woo ko am na lu xew hmm. waxoo ko nag am na lu xew <laughs> nanu koy wax am na lu xew hmm. am na lu xew li xew lan la nag waaw <laughs> am na lu xew même boo deful woon sax yow sa xol sacrifice na hmm. sa xol bi rek sacrifice nga ci <laughs> ndax seetaan gu ëpp rek sacrifice la waxuma leneen de seetaan gu ëpp rek sacrifice la ndax sacrifice xol a koy def. <laughs> waaw yenn nit ki la ba pare. non waaw sa xolo la koy may rek sacrifice la. <laughs> waxuma la leneen la nag. jëf ya door a ñëw. waaw kay. <laughs> moo tax bul ñàkk bañ wóolati ñëpp. Mhm. waaye bul wóolu ñëpp. Mhm. rawatina ki nga xam ni ba nga ko xamee ba léegi lu mu deful sa ndey ci lu bon amut. lu mu deful sa baay ci lu bon amut lu mu la deful ci lu bon amut mu xëy rekk di la defal lu baax nga mm. naan dëgg la mm-hmm. non yàqu nga gis nga boo nangoo xam nga lu muy wut naa la gën a amaat <laughs> ci ay loxaam ngay deewe sacrifice nag nit mën na ci mucc bu mm-hmm. baax mm-hmm. moo xam mun la ko man defe nag waaye nit mën na cee mucc waaye seetaa la di mhm. ñaa ngi dee ci erreur te man xam naa loolu waaye nag mhm. man na ñàkk lool sax ndax yàlla reyunu ci erreur mhm. ndax bindu nu woon ci erreur te te ku nu reyul ci erreur waroo dee ci erreur walla yàlla xam na léegi nag bakkañ ci moo jaaxal ah, na nit ñi yeewu nu nit ñi jug seen bopp na nit ñi bañ a sàgganu xëy di sangoo ndoxum xoromu kese moo ma gënal xëy bañ a sangu <laughs> ci léemaay ah. <laughs> du benn <laughs> ah. dégg ba de. jël doñ ju xorom rek tëmbal ko ci ndox di xëppoo ni naan lu muy xëppoo. Mm-hmm. moo ma taneel ndax lu muy xëppoo moo tax. la mu yor lu muy xëppoo buñ ca yemee moo ma gënal. non non jàll ci ñaata yor. Mm-hmm. ñaata yor gi moom mën na ma yóbbu yoof gi. <laughs> moo tax ala kulli xaal. Mm-hmm. na nit ñi di jàngat mm-hmm. di bàyyi xel mm-hmm. waxuma nag di ñaaw njott mm-hmm. ñaaw njott day indi yeneen détail lu wér lu leer la ñuy wax te lii ñuy wax nit ñaa ngi koy dudd waaw moo tax seetaanal il faut seet sa jabar feebar nga yor loo ko faje nga lànk bañ ko faj te tëdd ci ay milliards mm. su wéree nga ñàkk sa milliards yi ay doo ko wax oh su wéree nga ñàkk sa milliards yi. waaw bu wéree nga ñàkk sa milliards yi. kon moom nga tey la ngir milliards yi. ah am na <laughs> am na. moo tax waaw. moo tax yàlla nañu yàlla musal. allahumma amiin ah, ah. nit ñi di tey ci mbooloo yi. Mhm. léeg nit ne ci mbooloo gëm benn nit dara xew. mu ëppal ci ba leneen fekk ko ci fekkati yoo sarax sala yëgu ko mm-hmm. Mm-hmm. moom lañ saraxe waaw ndeysaan moo tax du fu la neex nga toog mm-hmm. du fu la neex nga lekk du fu la neex tëdd du fu la neex fanaan du fu la neex nit fanaan na foo xam ni dafa toog ba si yàgg rek yaram oh. <laughs> gi ni say boobu la gëj a wér karaw gi ni say boobu la gëj wér ci àdduna moom lay lox ba léegi sëriñoo sëriñ wër na fekkite yoo am na lu nu fa miine te yëgu ko walla bàyyi nanu ba mu dandunu def ko fa walla tombe na ci loo xam ni ca fa mu fe fa mu nekk fa la jëmoon moo tax fu nit mën a dem nga xam ko ak nga ñàkk bañ a xam delleemu day saxoo jàpp mhm. surtout jàpp waaw gaa ñi dañ lay topp mhm. dañ lay yàq mhm. te xamoo wan jamono la ñuy jóg yàlla nañu yàlla musal ci ñoom ci barke yeneen mi ngi noonu tubaarkaal macha allah rabbi <laughs> amati solo Cheikh Moustapha xam naa ne léegi moom dinañ ci ut dinañ ci fexe ay thèmes yoo xamante ne def ci ay jotaay yoo xam ne invité oustaz yi tamit ñu ñëw xamul ñu tam lan la ci diine indi tamit ndeysaan te yooyu day a day a ñu xaar mm. léegi rek incha allah bu soobee mm. yàlla ñu gis ne tamit euh, rey yi jamono yi dafa bëri mm-hmm. sëñ bi bu ne ba gone yu ndaw fukk ak juróom-ñaar di rey mm-hmm. xabtal yi dana ko def <laughs> ndax léegi seetlu naa sax ni ci réew mii nu ne dafa bare ay féticheur waaw ku néeg ganaar jël balo jël pistolet tiire ko hmm. wallahi boo jekkoo doomu aadama def ko barki yonent bi hmm. ndax xol bi la am na ñu koy def <laughs> am na hmm. waaye boobu garaawul de rey gi ni muucu seen derit nag moo tax ne nit ñi xam seen bopp te moytu <laughs> na ni moytu na ni moytu oh. ni moytu <laughs> ndaxte la ngay fekki fa nga jëm moo lay waral ëllëg ngay dunde loolu ak njaboot mm-hmm. <laughs> xale bu ndaw léegi ñii ki naaka jàmpaaka am na lu xew. Mhm. daawul xew de. waa ba jamono gënee naqadi mhm. ba xaalis gënee jafe mhm. ba yére gënee jafe lu mel noonu daawul am est-ce que du kon mag ñi dañu daan aaru daan waajalu ñun nu toll foo xam ni waaju nu aaru nu te ni nu danoo bëgg am jàmm danoo bëgg am tawféex danoo bëgg wér ah du nii la ñuy moo tax il faut nit ñi seetaa la nu jugaat bu baax mhm. gësamuwaat bu baax xoolaat seen bopp bu baax te laaj nan la ñuy def ba mucc mhm. ndax mucc nag am na mhm. <laughs> fu musiba am rek mucc am na ci wet ndax miim yépp ñëw na <laughs> <laughs> waaw miim yépp ñëw na miim yépp ñëw na lay ndeesaan waaw waaw waaw kon uh-huh. loolee dafa am solo sëriñ bi rey gi affaire la rek. Mhm. te léegi li gën a garaaw mbokk yi lañ koy xiirante xam nga bu njëkk da daan naan diw da doon xeex kenn. Mhm. mu jam ko ca garage ba wala mu jam ko ca chantier ba. Mhm. wala mu jam ko ca marché ba léegi nag dañu naan mbokk ma rey na mbokk ma. rey na jabar ca wala rey na doom ca. wala rey na rakk ca. <laughs> te kenn du ko weddi li tax nga xam ne xabta la nit dangay wax ak moom léegi mu la dama lay rey léegi waaw. ah boobu de yomb na ci réew mi dama lay rey léegi. te wallaahi bi mu koy wax dëgg la ci moom xamul sax lu koy wax lool. Oh. waaw moo tax. kon daal nit ñi jóg. réew mi réew kon ñëpp dee nañ. non <laughs> gaa yi rey nañ ñëpp. wallaahi yàlla xam na ko. am na res boo xam ni ku ko am. Mm-hmm. <laughs> ba daggal ci sa njaboot gépp nu lekk ci. Mm-hmm. du nu xab tolu mukk ci àdduna du nu xabtalu mukk ci àdduna wallahi du nu mas a <laughs> am na it lu nu naan koppin <laughs> am na <laughs> ndeysaan lu ne ci moom ci booru ndunkurunk mm-hmm. moom it boo ko defee sag njaboot mm-hmm. wallahi warabul kaam lu raar la nag moom waaye lu ama am solo la teyit lu doy waar la ndegam neex na sunu borom njaboot googu noonee dal rek la ñuy def dal rek def dal te nit du leen gis ba ñeme leen ba di leen influencé ba di leen détourné maa ko wax tey jii te bari nay firnde yu ci ne waaw boo ko boolee sax yaasinu jinne yi sax day gënati doy waar wala yaasinu rawxaan yi <laughs> ci gàttal <laughs> res wa resul lal moom waaw <laughs> ndeysaan <laughs> waaw waaw bëgg ñëpp aaru rek ñëpp aaru rek <laughs> wallaay yàlla xam na yàlla na yàlla xef dool yi macha allah rabbi amatina solo Cheikh Moustapha waaye daal xam naa ni moom mënta ñàkk ñu ci wax parce que fi mu ne daal réew mi dafa jaxasoo te kenn xamatul li xew li mu doon quoi vraiment jërëjëf Cheikh Moustapha mu mel ne amatina solo waaye bokk na ci est-ce que damay laaj ba xam tamit li nga xamante mooy a euh, nit nekk tam ci sëyam mhm. moo xam ci ku góor wala ku jigéen. néegu sëy yi. Mm-hmm. parce que ñuy gis jékki-jékki ñaar ñuy sëy ba yàgg jékki-jékki kenn ki mel ni dañ ko xabtal. Mm-hmm. sëy ba dootu ca bëgg dara. Mm-hmm. est-ce que loolu fi mu ne tam bokk ci comme li ngay wax léegi ni ci def-def yooyu tey. waaw xam nga xam nga ñaar dafa am foofu. nit léeg-léeg dana génn këram boo nee lu xew du la ko mën a wax. wér na. Hmm. bu moytuwul sax mi ngi continuer di def la mu doon def ci këram lépp. waaye manul fexe ba wax la ni la ni lii moo tax ma génn sama kër benn beneen bi si tegu xabtal ak naawtal dana def lool xabtal sax moo dàq lool mooy nga ne ci sëy ba ci yàgg nga ni bëggatuma dara sëy bi taseeg góor gi da koy def jigéen di ko def bëggatuma ci dara nu dugal tànk dugal bopp nga ni bëggatuma dara te bu nee la lan moo xew yow manoo wax li xew lan la ah loolu nag xabtal da koy def. Mhm. mooy xëy li naan du da daatle. du da daatle googu nag bu amee xam nga fan lay tàmbalee. Mhm. galaaj gi balaa ngay xam ne mi ngi tàmbali jàpp. waa ji day tëdd ci kaw ndaw si tëdd ci suuf baa ndaw si tëdd ci kaw waa ji tëdd ci suuf. gis nga ñu ngi ci digg bi. Mhm. bu yàggee day puus ba ca bunte ba. bu yàggee day dem ca saal ba. saal ba bu yàggee day dem ci ëtt ba. bu yàggee day génn. nii lay demee. ñu ne noo amul solo amul solo moo tax loo gis te mosoo ko gis sa kër rek. Mm-hmm. moo xam ci sa jabar la moo xam ci sa doom la wut ci matuwaay. Mm-hmm. ndax gaañi saay saay nanu. Mm-hmm. doy na nanu waar. yéeme nanu moo waral jigéen bëgg ba si yàgg ni bëggatuma. te wallaahi gis nga bu génnee ci sëy bi. day wëlbatikuwaat lu mu yor def ci mhm. ngir delluwaat ca te xamul lu xew mhm. moo waral it góor gi bu ci génnee muy wëlbatiku lu mu yor def ca te du tax mu xam lu xew mhm. fekkati yooyu yàq-yàq gi nii lay deme Seex Taal macha allah wallaay ndeysaan doy na waar kon tam ba tey de mel ni tam génn ci nit koo xamante ni fi ne lu lu lu ko dal tey bu subaa bu tane ñu def ne pare na leneen daal di koy dalaat mooy mel nit ku am ay taat nit koo xam fu ñu ko fekk mu ngi feebar wala yu mel noonu kort korte korte mën na génne ñetti jàngoro ba juróom-ñaar korte ci nit waaw tey tànk bu néew bi la suba taab ci diggu gannaaw la gannaaw suba taab ci fóot gi la gannaawaati suba hmm, taab ci jëmm ji benn taab laa la wax xam nga mm-hmm. beneen bi si tegu korte xanaa xamoo dana dem ba nu def la loo xam ni mhm. dangay romb aw weñ weñ ngi xotti sa tànk bi góom bi dootul weer sa dund korte dana ko def nga nga faj ba sonn nga naan pourtant góom rek laa ko tegoon baa ngay jékki-jékki di néewi rek waaw wow waaw bu baax sax waaw ni naan la danga xorom danga tension danga nàngam danga nàngam ngay fajoo fu ne di fajoo nu ne du la tax a moo tax ku xam li xew non doo toog doo taxaw loo muslu na nga ko xeeb te du la teree gëm yàlla nag surtout mm-hmm. waaw surtout loolu mm-hmm. du la teree gëm yàlla nag mm-hmm. xam nga nit ñi dangay ngay léemu ni naan la xanaa gëmatoo yàlla kala kay wax boo moytuwul waaw mooy tax sax ba dootoo gëm yàlla ndax la lay naqadi moo la koy def moo la koy def <laughs> yàlla na ci yàlla musal mm-hmm. mboolem julli mm-hmm. macha allah amatina solo xanaa bu mujj bi rek fi mu ne mooy xanaa daanaka mboolem li fi waxtaan yëpp buñ koy xool kon fi mu ne ci ak mbon la tënku bu baax ci ak mbon que tey jii bagage yi xorondom mm-hmm. lañ bëggoon nga wax nga may ñu ci tuuti waaye est-ce que tey kaaraange mi ngi ci parce que gis nañ xorondom tamit mu doon mbir mu doy waar te du fu ne lay am. Mm-hmm. <laughs> waaw xorondom de seex la mm. soo bëggee xam ba xam liggéey nañ la am déet xorondom mën na la ko wax. benn. Mm. saraxi xorondom boo ko xasee xam. sa mm. xorondom am na sarax. boo xasee xam saraxu xorondom. ñoom laa wax de nga xam seenu sarax. Mm-hmm. dootoo ñàkk ci sa dund. doo yor njaboot gu ni yërëm saraxu xorondom nag xam nga mosoo ko dégg. maa la ko wax nag. <laughs> loolu kay saraxu xorondom. sarax <laughs> yow nga xam ne xorondom yi lii la nu bëgg nga saraxe ko fa. Mhm. <laughs> bul ko teg ci dugub de bul ko teg ci ceeb kese de saraxu xorondom. Mhm. boo ko xamee laa ni la. Mhm. doo jur doom ju nuy yërëm. doo am xarit bu nuy yërëm. doo yor kilifa gu nuy yërëm. wallahi sa baay bi la jur sax bu doon da juddu fekk ko ci ñàkk. yow nga xam sa roxo xorondom sama borom dana la dimbali ba nee naa la mm-hmm. du ñàkk mbooloo mm-hmm. du ñàkk bayre mm-hmm. te du ñàkk wér te nee naa la suufus xorongom day dox ci bayre waaye day dox ci kaaraange waaye nee naa la boo taxawee ci diggu xorondom benn xorondom yéegu la wallahi liggéey nan la ba nga yàqu xorondom mun la liggéey du la nangoo yéeg seydina muhammad sallallahu alayhi waaw ci gàttal. <laughs> ndeysaan. si te te te te. waaw ah. waxaguma la de suufu xorondom goo booleek alxuraan. Mhm. waxaguma la de xorondom buy dugg ci kàmba gi ak gi génn ci kàmba gi nga am si ñetti ñett waxaguma la la muy jariñ de gii dugg laa la wax de. Mhm. Ah, am na lu muy wund ngi génn am na lu muy wund waaye nga dem ci kàmba gi toog fa. Mhm. di xaar bi dugg ak bii génn. <laughs> bu ne nga am ca ñett loolu nag beneen affaire <laughs> am na bu koy juróom ñaareel mm-hmm. waaye ci rond-point xorondam gi la nekk mooy fa nu sàkku seen yoon ya mm-hmm. fa koy jële mooy ju mooy juróom ñaareel waaw waaye nee naa la bu ci ne ak li muy wund te bu ci nekk boo ko jëlee am na ci lu muy dox boo ko defoon juróom-ñaari fan gisoo ko wër ma ba gis ma man Moustapha Guèye man maa la ko wax loo doy waar laa lay wax xorondom am na sarax <laughs> moo tax nag beneen affaire la <laughs> waaw mhm. kër yi daan am xorondoom dëgg mhm. dan naan la borom barke fi de woon wala mhm. borom xam-xam maa la ko wax tey foofu laa ci sañ yàlla oh. <laughs> ndeysaan tarkal yàlla xam lan ngay may gars yi ak kàddu yu mujj yi ci jotaay bi tey macha allah xanaa rek di leen baaluwaat ak ndax wax metti na mm-hmm. ba ci mbokki doktoor yi bu dee wax ci am na koo xam ni jàpp nañu nii mm-hmm. lor nanu ko ci te mu ne ca yoon wa yàlla na ko yàlla dimmali ci la mu ne mm-hmm. waaye moom a baal nu àq ci wax ja xam ni moom taxul nuy wax ñay nuy wax xam nanu ñan lanu te ñoom xam nanu ñoom la ci gàttal di waxit di baaluwaat àq mbokk yi ni teewlu Seex Taala mhm. ba léeg-léeg di ci xuloog sax ak seeni nawle di waxaat ni mbokk yi ni teewlu mhm. te bëggunu fe fu nuy dégg lenn lu nu naqadi mhm. waaye di baaluwaat àq ci weer wu sell wi ci koor gu màgg gi ci mbaaxug yàlla ak màggam ni wax loolu waaye di wax ni Seex na nit ñi di muslu tey moytu te bàyyi tooñ ndax gàllaaj daal gis naa li koy toj Mhm. tooñ la. Mhm. waaw. takk gàllaaj gu baax ba pare tooñ. te nit ñi bañ di jaawale di dajale ak loo moom du benn yor alal. Mhm. doo ci dimbalaate. bul yaakaar ni yaaka moom de. da dajale li nga moom da koy joxe. te du la moom yaakay moom. li la moom nag doo ci lekk doo ci naan. doo ci solu doo ci maye doo ci saraxe waaye dama xamul fan la lay jëme loolu rek ma <laughs> moo tax ndeysaan na nanu yàlla dolli sutura di sant nag waa télé bi mhm. taxawaay gi nu am mhm. ba di mën a servir jaami yàlla yi mhm. luy dal seen xel yàlla na yàlla barkeel télé bi di ziyaar ñépp di ziyaar sunu imam bu baax bi di imam Babacar ak wëllëreem boobu mhm. di Seydi Maxtaar xam ni foo leen gis Ousseynou ki Assane lan mhm, di kilifa it mhm. waaye di ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp sutura di waxit am saa gi yàlla na doon lu wër àdduna tey jariñit àdduna surtout waaye di sauver sax foo xam ni Moustapha yeggu fa Taala yeggu fa Samba yeggu fa Mor yeggu fa Demba yeggu fa yàlla na ko yàlla def ci barke yonent bi ndax seetlaa la gis nga jàkk ji ngay jullee sax mhm. barke yàlla nga fay sàkku dëgg la waaye kër gi nga yeewoo mhm. barke yàlla nga fay sàkku mhm. waaye tele bii barke yàlla rek moom lañ fiy sàkku ndax bu amee barke bi sax dana koy bëgg di déglu yàlla def na ko fi waaye yàlla na nu ko yokkal yàlla na nu ko yokkal yàlla na nu ko yokkal ndax ñun jaami yàlla yi rek nu yittee waruñu leneen <laughs> yàlla yàlla na yàlla dooli sutura lii laay wax mbokk yi mm-hmm. di baaluwaat ak ñëpp Cheikh Talla mm-hmm. macha allah mm-hmm. jërëjëf Cheikh Moustapha wax dëgg yàlla euh, xamatuma luñ ci luñ ci war a teg parce que wax dëgg yàlla kaddu yi matal matale na lépp saa yi ren wa baatin dan xanaa rek ñaan yàlla suñu borom mm, dolli la sàmm dolli la aar dolli dëgëral taxawaay bi yokk mbooleem wér gi mu yokk ko saa yi ren wa baatin dan ba yéene ji nga xamante ne naa la nga ko askan wi ndax ne naa lu lu ñu waxtaanee lu ne rek daanaka buñ la dégloo xam ni da nga cey junj rek bàyyi ndax lépp munoo mënoo koo mënoo koo xajul sax far ci jotaay te rawatina ci wàll fàll wàll fànn fi bi ngeen féete du li ngeen xam lépp ngeen di mën a wax donc moo tax toujours dañuy dinañ laaj actualité yi nga xam ne day xew ci biir mhm. kër yi mhm. waxtaane liy xew ci biir kër yi waaye waxtaane tamit lan la ci xam-xam indi ak mhm. alxuraan lan la ci indi ak yan secret la ci mag ñi indi woon moo tax suñu waxtaan buñ ko xoolee dañ koy tënk ci pàcc yu bare bare bare bare kon mënta ñàkk fi xam-xam boobu dajee tam ñu ñaanal ko moom mu wér te am jàmm te am xew te am taw feex ndax xam naa ni yéene na ñëpp jàmm kon mm-hmm. yàlla na yàlla sama borom defal ñu dégg topp waaye itam sant bu baax a baax mbooleem internet yi nga xamante ni ñi ngi topp Amsa TV mm-hmm. la télé solution mm-hmm. nee naa loolu rek mooy suñu yitte li ko sëñ bi waxee maanaam jëriñ askan wi rek moo ñu jël te te jëriñ leen ci norme yi nga xam ne mooy siraatal mustaqim mm-hmm. parce que boobu surtout parce que waaw jëriñ dafa bëri ay mm-hmm. façon waaye jëriñ ci norme yi nga xamante ne mooy li siraatal mustaqim mm-hmm. indi muy tege ci yoonu siraatal mustaqim muy ci yoonu njub ak dëgg dégg ngeen Cheikh Moustapha saa su ne buy tàggoo ni muy tàggoo mooy nañ leen moytu tooñ parce que dégg nga ko léegi ci kàddu bi mujj tooñ mooy li nga xamante ni moo mën a toj gàllaaju doomu aadama kon nanu moytu tooñ kon sant daal gërëm ñaan yàlla sama borom may ñu mm. fekkewaat beneen jotaay kenn ku ci nekk lay bëggam ak yéenam ak mbétam suñu borom mi dul jeexal dara am lépp sañ lépp mën lépp yàlla jàpp mm. mm. dara leen wax bi ndax temps moom li ñuy leeral bëri na torop fi ne macha allah rabbi <laughs> ah, dig dajee ci seen beneen jotaay ak seen jotaay xam-xam bi jërë ngeen jëf wasalaam ci barkeb say xi fàddilu buur yàlla ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi buur yàlla ay maqaama yàllaaw